waaw ba tey ñu ngi fii ci aéroport international Blaise ñu ñëw fii ci kàngam yi nga xam ne macha allah kàngam yi daara lañ kàngam yi alquranu karim ñu koy wax soxna jaara ngom mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla yi ñuy jël bokk na ci ñi nga xam ne ñi njëkk a ci dëkk bi la mu koy jël macha allah moom moom wax dëgg yàlla Rafah TV dem na fa seeti woon ko bi moom tamit yàlla dogal na demoon na Dubai moom tamit jël fa ndam macha allah muy jàmbar joxoon wax dëgg yàlla daal ñoom ay roy waay lañ ci seen moroomi jigéen ñi ak si moroomu ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi woon doon yeexamtalu ci téere bi ay roy waay lañ mu ñëw fii tey ci fi nga xam ne mooy aéroport international Blaise Diagne ñu koy laaj incha allah moo fi nekk ay tànkam soxna si ñoo ngi lay nuyu incha allah moo war a nekk say tànk fii. asalaamaaleykum ah, wa ngi ñoo ngi leen di fay di wax ne li tax ñu ñëw ci kii bi aéroport bi na wax dëgg yàlla mooy seet si ñëw jël si kii suñu champion bi. mooy soxna Ndate Cissé macha allah dëgg yàlla def na loo xamante ne si moom suñu suñu mbégte la ci ñun ñëpp surtout waa Sénégal. jëlalu ko waa Touba kese waaye waa waa Sénégal si jëmmum la ko jëlal wax dëgg yàlla macha allah mooy koy ñaanal muy njiglaayam te mu mu mu muurloo ko. yéen ñi moom da ngeen di déggante ba da ngeen di joxante ay conseil seen biir kuy dem ngeen koy ngeen wala wala lan ak yow tamit lan ban yëg-yëg nga yëg ne bi mu yëgee bi bi mu demee bi demee foofu. waaw moom nag wax dëgg yàlla ñoom ñoom moom. comme bu fekkente ne ñun suñu suñu biir. Mm-hmm. balaa ngay dem kenn ku ci nekk balaa moo dem faaw. ku mu gën a jege rek ca moom lay dem nga xam ne koo xam ne yàgg naa dem ci concours ci moom lay dem mu joxe koy conseil waxtaan ak moom ba nga xamante ne si dellu comme xelam dellu si na ba nga xamante ne si dootul xalaat dara du comme bu demee ba foofu du dara du dara du ko jaaxal daal. waaw man wax dëgg yàlla nag kontaan naa trop ci concours concours bi ñu doon def wax dëgg yàlla kontaan naa te li ma si gën a neex nag mooy. ragalu fa kenn amul kenn ku muy ragal foofu. xam fekkente ne. waaw xam fekkente ne Sénégal. Mhm. surtout nit ku ñuul. bu buñ demee si genre concours yu mel noonu buñ gisee naar yi ni ñuy taree. ak tamit al yi mu wàccee ci ñoom. tamit dañuy dañuy xaw a mel ne ku ragal ku leen xaw a ragal ku am complexe ci ñoom. waaye nag moom dëgg yàlla yàlla def na ne moom suñ suñ borom suturaal na ko ci loolu waaw wax dëgg yàlla alhamdulilah. yéen jàpp nga ne moom foofu dund na fa ay jafe-jafe yow mi nga xam ne njëkkoon nga faa dem ak moom wala ak moom wala ëmb fa benn jafe-jafe ci dem geek ñëw gi. déedéet jafe-jafe moom mën na faa bañ a am ndaxte boo xasee ba jógee sa réew. Mhm. jëm ci aéroport bi aéroport boo xasee ba wàcc. moom say jafe-jafe jeex na. jeex na doo amati benn problème ba ba ngay ñibbisi waat. incha allah dëgg yàlla ñoom ñoo lay jàppale ci lépp ñoom ñoo lay jàppale ci lépp ba ngay ñibbisi waat. xam naa kenn du tàggatoo yow te wax dëgg yàlla nag te jàngaloo wu la alxuraan dañoo bëgg léegi nga jàng tuuti rek incha allah ñu dégg la te riwaay bi nga jàng nga présenté ko ñu dégg. maa ngi jàngee ci riwaayatu Bazzi an Ibn Kathir. macha allah bismillah. a'uudu billahi minash shaytaani rajiim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم